Oh!

بالخلد وغرب الخالد موت الخلد المنازل Mama, you're xalifa sama papa ja sama Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Si Maadi si ngàcce ngaalama daagul doomu yaay Safiya toog Tuuba ki waawan booloo dara nga def xalifa ku fi gën a bëgg da baax Maalik si ngàcce ngaalaama daagul doomi yaay safiya toog tubatoon booloo dar ba nga dil xarifa soppu da baax maa di si maali xamoo si yéen xamul ña ngeen nga dëkkuwaay baaxe leen ngay sët yónneen baabu Cheikh Abdal Aziz ku jub la xam moom Abdou góor si xamul si yéen xamul ña ngeen nga dëkk waalo mbaa feneen ngay sët yónneen baabu Cheikh abdal aziz ku jub la xam mam abdul dal yeneen bi yaa ko solon fii mu jot la set tarixa seex bi yaa ko safal sab sunu sénégalu naa yaa ko kal ba dum suuf li ñëpp ko yëg ku bëgg daal baax maa ni ma am waxam yëpp xam yëpp xam yëpp xam yëpp xam yëpp moo di kitaabul ilaahi xadiisu rasuuli safiul umam ku jóg dem fa yàlla def àndandoo kii du dox du si booru du jaayub ngorom ci amutul de ku jóg dem fi yàlla def àndandoo yii du doom yi du si booru du jaayum ngorom ma xam ku jóg dem fi yàlla def àndandoo yii du doom du si booru du jaayum ngorom bani waasandoo si julli jumaaja doxal yëpp a nit yoon kan dem ngërëm ba nii naan du ngay jiite ñii naan xanaa asan de ma naan tey la say ñàkk xam buuru moro fi ñëwee ñu wàccee ko grande mosquée ñu inauguré grande mosquée ñi naan ku koy jiite ñi naan xanaa seen de manaan tey tey la sey ñàkk a xam sëriñ ab ñi naan ko antar bi wala min ajam si turundu sëriñ Abdou Khutba ci jàllee na yem ñu naan ko mu taar bi waraay min ajam sëriñ Abdou wàcc ci tribune ba jëm biir jumaa ja ku ne fer gën am musalman asan buur morok naan sëriñ Abdou jàngal ma fii saaru jum ci musalmal asan mbuur ma rag naan sëriñ jàngal ma fii yee fii saaru saaru jum musalmal asan mbuur morok naan ko sëriñ abdu jàngal ma fii saaru jum fa wallahi foofe wallahi foofe bu doon ak dabbaax maalik sénégalu naa cantam du weesu acam fo wallaay foofe bu sama sang bi Dabakh Malick Sénégalu daa cantam di weesu ba acam fo foofe bu doon ak sama sang bi Dabakh Malick Sénégalu daa cantam di weesu acam kii mooy sëtub Demba Bun lagal xentu sunna lu dul sunna bon lu bon mm, bul sa jëm sëtub Demba Bun lagal xentu sunna lu dul sunna bon lu bon bul sa jëm fi gën a bëgg daa baax Malick tub dem ba bunna lagal xeñ ci sunna lu dul sunna bon na lu bon bul sa ma am ragal yàlla jaatax bu dee waare fii sama sonj bi ragal yàlla jaatax bu dee waare fii dafay mel ni gàncax bu yëpp ab tawam ci sëriñ ab ragal yàlla jaa tax bu dee waare fii dafay mel ni gàncax bu yëpp ab tawam waxam yëpp moo di kitaabul ilaay xadiisu rasuuli safiul umam fi gën a bëgg daa baax maalik نال الولاية والسعادة والتخاء بأمانة وعدالة الأبرار sëriñ Habib si Malick ne rakkam ju baax ji nee na dabbaax Malick te ku way léykat nii mu alaajab lu ñu bokkoon day ak bàyyi moo dafa baxin baxin yaa sayyidi wa malaazana man kaana xaatimi asrihi wal baari ajaban bi bidati malikin wa imamina ni'mal fata man hada kulla faxaari mooy gaañi lim laa eey gaañi lim laa ci bi Habib si maa ne gaañi lim laa lim laa mooy pourquoi gaañi lim laa wa anta walidu Maalik seyxina zaaka allazi huwa al umdatu al axyaari nu pourquoi da baax Maalik pour mel ni mu mel pourquoi pas xalifa nee na pourquoi pas da baax Malick ni mu mel la moo tax waru ko mel lim laa wanta walidu Malick seyxina zakalani walum radiun axyaari naal wilayata ma am wa saadat wa tuxaa بأمانة وعدالة الأبرار يا قابل الأرواح طول طول أمره وانشره في سر وفي إجحار حتى يتمم كل ما ينوي به خير الصليم من رب من أدراره الحمد لله الذي خلق السلام يومهما من مركز الأنوار الحمد لله الذي خلق السلام بيومهما من مركز الأنوار كل ذنب باق مالك الحمد لله الذي خلق السلام بيومهما من مركز الأنوار sëñ Abdou mu nekkee tuut tànk am benn naar bu ñëw kër Sidi Hadji Malick Sy boobu El Hadj Abdou ndeysaan dafa xam ne xiiwoon ba mu nekk xale mun a wax kan mu jur xale bi mu ne ko kii de doomu Maodo la xale la rek bàyyi nañ ko mu dem ci xale yi naar bi xanaa da a dof kii ma gis mu ànd ak rasulullah ne ngi mu ànd ak yonent mu ngi nii ma mu ngi nii gis maa ngi nii di ko gis mu ànd ak yonent bi ci alxaj moo tax maam xam ne ko alhamdulilah illadi xat xasana بهما من مركز الأنوار لن يلبر يلبر كراج أبدا أجيب الوار لدينا لن يلبر يلبر كراج أبدا أجيب الوار لدينا نيمون جاقيد لا دينا نتجي دينا أقوم أفلتي خير ay ay mu loolu moo والله إيان ذناب لدك أمر بيتي لكل سهر جنبتك لاني لديبان جنبتك دقي جاخ جنبتك دقي مربع عزتك وخجر ما في قمان دون منبر

لمولاي saa su as gor mayee jaar mi jar nay dolani mu dolle ma dolle ma dolle ma dolle ma dolli ko ma dolli ko lu raw aw dolani mu dolle ma dolle ma dolle ma dolle ma dolli ko ma dolli ko lu raw aw dolani mu dolle ma dolle ma dolle ma dolle ma dolle ko ma dolli ko lu raw aw dolani من يا مبين ترك أبيني خيري أو مبيني لويدتي ويدني تيدي سرد بلدي دم يا يوسف ويل بالخادم أبدا يا موت ويل المتين ويل بالخادم

ستها آبكم أم الذين بخري أنجبا فيا رب سلم على المصطفى نقم أيهم وقتري ورحمة الله وبركاته ñu jiital ci nuyoo bi ki yàlla jiital ci nun te mu te boo nee yonent bi gis ay waa këram gis nga ko te kii nu yàlla booleel ci géeje waaye li ko wër yépp muy Cherif Ibrahim Haydara at moom la ñuy xoole maamam Sayyiduna Muhammad di ko xoole maamam Sayyidi Cheikh Ahmed jote wunu ca xadara ba ñu xoole jëmmam ji cheikh El Hadj Abdoul Aziz fa tabarakallahu kon li ñu bëggoon yàlla defal nanu ko la Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ne woon sëñ Babacar yow yaay sang bi nekk kenn xeer bu jam ñaari picc dal ci sa kaw ndax yaay waarisal xud ak sa maam Cheikh na Tijaani yaay sayxil machaayix kon yooyu yëpp ndam bu yàlla dajale ci moom la moo tax ñu xoole ko ñett yëpp di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yal ko yàlla defal Chérif ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér barki démb rek noo ngi jokkoo di waxtaane Morola ca jëf ju jëm fa def tund Morola bépp bég lool ñuy say soppe di say xarit ndax léeg-léegi nit romb ma déema ne ma ba shérif di feñ dina ñëw ma ni ko kooku bu la nee waaw rek waaw insha allah fi léegi yàlla ak nu may nooyi di ngeen ko gis ci ëpp Morola ñu toog tuuti rekk oto ba leer xati dugg xool yépp benn ñépp génn dëkk bi yépp nit yu yàlla ya fa ne yépp ñépp di bége sa jëmm ji noonu nga nuy sagale fii sagale nu ko ca sunuy dëkk yal na la yàlla yàgg sagal sa barke maam rasulullahi ñu ñaan yàlla nag sa yéene ci diine ji sa yéene ci aada ji sa yéene ci tariqa bi sa yéene ci mbokk gi sa yéene ci dëkk bi yal na ko yàlla mottali sa barke soppe ba Cheikh Hadj Abdoul ci barke cofeelam ci Cerno Mouhamadinil Basir Taha Muntaha Cheikh Al Hadj Omar Al Foutiyu kon bég nañu kontaan nañu ci yow fa tabarakallahu yow nag nuyu la mooy nuyu nañu ñëpp boo jotee jotal ñëpp ñu nuyu sa soppe bi nga àndal di alxaaju malik jóob nga xam ni tabaarakallahu xamante wunu fii ca Cees la way juram bu tedd ba Cheikh Hadj Omar jóob moo daan toog di tafsir alquran ñu toog ci wetam yàlla xam na ko góor googu laa gis damay ragal ni sirru fatiha moom daane ci moom mësta wax dara ñaanam fatiha rek lay wax nañ jàng fatiha buy ubbi buy tëj na njàng fatiha ndeysaan ci moom laa njëkk a déggee mu firi ankabut firi gu neex waaw suratul ankabut nee na bi mu koy firi dañi xam ngeen ci misaal mooy lan ñu ni ko déedéet mu ni piloteur bi jàng avion jàng ga neex rek mu taal ni ma yi dem te jàngul wàcc bu ñibbi si jotee dana jommi sa bàyyi ko firi maa ko dégg ca Cees ca jàkkay Pape Makhtar Cissé jama jàngee alquran man Kabir Sène Pape An ñoo bokk kenn ku nu jàngal alquranul karim maa la ko wax maa ko njëkk a wàcc alquran sax may wàcc wàccut pap an ñoo bokkoon daara barke laa jàpp wàcc naa ba ñibbi ba ko fa maa la ko wax ñoo bokkoon benn daara ak ren mag ja tet aan kii xam na tet aan ba baara yoon xam nga daara ji ba ñu lay tuddee tur rek te bopp baaree ñu tuddee ko tet aan am na benn daara bu ndeysaan Ousseynou ma nga dëkkoon Kaolack daa siti woon yaram ba weex taal ñu tuddee ko mbeex mbeex boo duggee géej bay ñibbi sa kër sangu yero galaat yu weex yi ñu tuddee ko mbeex daara ji kay boo ci nekkee man moom sama tur dama koy leb rek ba beneen <laughs> ndeysaan waaye yal na yàlla defal ñëpp jàmm kon nag bu toogee nii muy professeur bu mag ca lycée ba ca Thiès di fa professeur bu mag di jàmbaar te Chérif ñaara ngi nii te Thiès ñaara ci man muy miiraas Cheikh Ahmed Tidiane Mbay bu Baye Ndiasse ak Cheikh Hadji Malick mi toog sekkere boobu xam nga ko xam nga ko ah, ah juum rek ay dara lool de moom juum la moom waaw kon man xam naa ko bu wér ñoo nekkoon ndeysaan Seydi Ahmed Sarr aka baax kaay waaw Sidi Ahmed Sarr moo dugg noonu bu Louga di jarbaat ci Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin di soppe Chérif Ibrahima Haydara mi toog ndax moom ak soppeem ak xaritam ñoo dëkk ca Louga muy Mouhamadul Basir sang bu baax kooruk daaw ñun ñëpp bégal nañu ñun ñëpp kontaan nañu bi ñu la woowee ci Cheikh Al Hadji Malick li ma gën a neex ci wax ji nag mooy tontul nga nu défense sa sëriñ te offensé woo kenn te looloo jafe kon nag tabaarakallaahu yal na yàlla defal la jàmm defal la sutura bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla taxaw bu baax a baax a baax na nañu kontaan nu ci sa teewaay kontaan nañ ci sa jotaay jërëjëf tabaar su ma benn wëllëre dama ko laaj fan yi foo ne mu ni ma ci Ahmed Sarr ma ni ko toog fa ma ni ko bàyyi leen tig tag gi nit boo toogee ci kilifa ba jéegoog moom ngeen juboo danga fay toog waaye fu ne nga dugg fa di génn baaxul shérif am na ñoo xam ne jël nañ salaatul faatiha fukki yoon mbi léegi loolu moom nang ci li wax ci ay dara am na ci ay client am na ci clientam yoo xam ni jël nañ salaatul faatiha fukki yoon dañuy ñëw shérif jox leen nu dem jàng ya neex cere ja niin nu jël ko fa <laughs> gars yi baax leen xam waaye yow day dara <laughs> doo jox ku rëcc ndax yow sa maamay joxe ngay jottali yal na yàlla guddal sa fan jërëjëf Sarr gudd yal na yàlla barkeel sunu yaay yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu ci kàddu yaa jatu ba yaa jatu mi nee na mu ngi sant yàlla julli ci rasulullahi nee na di sant Chérif Ibrahima Haydara nee na mi ngi ñaan yàlla seen diggante yal na ko yàlla sàmm ba aljanna mi ngi ñaan yàlla même bu la njëkkee dem téye ko téye njabootam te noo ngi ñaan yàlla ngeen dund téeméeri at ak juróom-ñeent fukk yu tàmbali tey yaa jatu ku la sopp la ku la bëgg la ku la bàyyi xel la yàlla xam na ko bis bi ci ay tawat la ko fekk waaye dani bis bu sérif jàpp at mu nekk boole ko ci calendrier am dara mënta tax ma dox sama diggante ak loolu danaa ko def di ko def fa tabaarakallaahu ba keroog mu yëg nii bëgg-bëgg baa ngi fi mën a fi newut waaye nag nee na fi leen mi ngi dund muy am ndax yaa ko noté jàppal ko ko waaye ku ne xam na ni fan yi wérul yaa jatu nee na guddu gàtt mu ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla jàppale guddal sa fan bàyyi la ci kanamu njaboot yi bég na ci yow kontaan na ci yow bég ci say njaboot bég ci ay ay dëkkaaleem ak mboolem ko fi teew ñi mu bokkal xadara bi yëpp sant na leen gërëm na leen yal na yàlla defal leen jàmm nee na di sant tàggatu yonent yëpp ñoom maam góor bàyyiwul kenn dëkk bi yëpp sant na leen gërëm leen ñoom imaam si ak imaam Mansour Diba imaam Taal ñëpp sant na leen gërëm leen ñoom ñëpp ak góor gi sow góor gi sow surtout ah jàpp na ci lool wallaay bàyyi yaay jàpp ne jàpp na ci lool kon tabaarakallaahu yal na yàlla defal ko jàmm yal na yàlla taxawu ñépp mboolem ko fi teew rek sant na la nee na di sant ñii shérif àndal ñu ñëw wettali kook moom nii tabaarakallaahu waaw waaw ñi nga xamante ni nii ñoo ko sos jàppale ko ci muy ay njabootam di ay doomam di ay doomi ruuxam ak ñépp sant na leen gërëm leen kenn ku ne xam na ni fan yi wérul waaye yéen ci jàpp ba tànt bi taxaw mbooloo nag du dara billaahi bari na mbooloo mu tànt ba ca la ravin gee ñëpp ñëw dugg ci ñu dem ndeke mbooloo ma yàlla nanguwu ca dara te nee naa yaa am nga sens xam nga shérif jàpp naa la waaye benn bis ma siteel la dafa am benn conférence benn daayira bu ma yor fii duñ demal kenn ñàkk bayre bay bëgg a dee bi ñu amee conférence ba 16 ya nag ma wax gars yi naan na ñu 356 ma ni déet du ngeen demal kenn def leen 25 réservé 25 bu ñi ñëwee ngeen di dolli par benn mu ni noonu dina baax ñu def ko <laughs> kenn wàll ga yëpp ñëwunu wat naa ko ci yàlla ñi sérif doon waxal séesee leen ëpp waaye yàlla def ci baatin bi mu commencé ñëppuy fàq di ñëw mais bu doon ñi fàq ñëw moom ñunu neen rek ci laa ni mais sérif a fi man man waxali sées ñun jàngkat yi sax mun noo jàngali sées moo tax ma demee kër ga laa commencé de formation sées bu ma demee ci ngénte ñu teg sées ya ne nit ña ñëwaguñu ma jor micro bi jàngandoo ci sées yi ndax ma mën koo miin billaahi wallaahi tallaahi yàlla xam na ko noonu lañu conférence la jël tempsam di waxtaan ak ñun nga yëg ni kii même bu dee wax ak ñun am na ñeneen ñu muy waxal xëy na boog ñu toog ndax nii mu jëlee tempsam vraiment loolu kay ku yàlla tax a jóg rek moo koy def kon kii seetul mbooloo seetul ni nit ñaa nga fa li ko intéressé mooy li muy wax donte que benn nii te fa ne na ko yóbbaale kon ay jara kontaan nañu kon mbooloo du dara wax dëgg yàlla jigéen ñi nag sant nañ leen yéen rek dëkkoo leen géej a waaye tànt bi yéen a fi man wax dëgg yàlla dem ngeen ba nee daanaka sa xaw tuut ngeen war mën a mottali nee bu di woon liñ wax kay góor ñeeg jigéen ñi rek waaye kon dañuy xaaj nee ñu dem nee ndax nu mottali waaye yal na yàlla fay leen yaa jot bég na ci yéen nee na di leen nuyale gorom bii toog waaw kii gorom la doomu soxnay doomam ah naka soxnay pap mii toog la jërëjëf soxnay pap yaa ngi dégg wax waaw pap pap waaw la dégg waaw soxnaam moom la ñuy wax ni jërëjëf ma nga noonu waaw ba Belgique waaw Belgique la jógee ah hmm? <laughs> damay bañ la doon waaj ma de mu ni ko hier ñëw naa gàlle fekk ñëpp accouché daa fekk ñëpp yi nelaw loolu laay bañ mu dal mu ni ko mais booy ñëw naa gàlle mais yoo mais ñoom mën nañ accouché de ñëpp accouché ma ni ko yàq kii dee bëgg a dee la kan ne ko dindi a bi rek bu ko dindiwul danañu ngénte ba dee <laughs> kon nag tabaarakallah sant nañ bu baax ñu ngi leen koy nuyoole yaa jatu nee na sant na ko gërëm ko ndax li muy ñëw di bees yëpp ku bëgg njaboot la ku jàpp ci njaboot la vraiment ku ko bëgg la man de xaw ma yaa jat yéen a ngi hmm? ay magam ñoo ngi nii toog fa tabarakallahu baax lool ànd ak moom yal na yàlla defal la jàmm kontaan nanu bég nanu yal na yàlla taxawu yàlla guddal sa fan paap yàlla defal leen jàmm waaw waaw léegi nag ah mooy ceeb ah sant nañ ko nee na maam lu tax santoo ma maay ceeb ah yow mii kat kon bu déwén sérif day yendu si nga ceeb ba sa ceeb ba dana mel ni ceeb ak morolaa ba démb de nga ne la gama demoon aselem dama ni maire bi xaw ma ko ajul waaye tawaaf nga sa ceeb bi neex na tawaaf bu nangu ca ceeb ba nga koy xame ma sama maam noonu la daan xoolee tawaaf bu nangu fa tabaarakallah yal na yàlla nangu yëpp jërëjëf kontaan nañ bu ko defee nag ci ndigalu shérif nee na nu jox Seydina di ziyaara ñëpp te it nag di leen balu àq bu baax a baax ndax tàkkusaan lañu waxoon waaye nag àddina bu xaw a tukki la rek ndax nit ñi yàlla sedd na ne tey benn nit benn benn laa joxoon rendez-vous kër ga doo xam fu nit ñi di jóge doo xam ku leen di indi te mënoo ñàkke kenn teggin moom daal Sénégal dëkk bu naqaree dunde la yàlla xam na ko li Serigne Cheikh doon wax dëkk bu naqaree dunde te neex a deewee mu ne mooy Sénégal benn nit laa joxoon rendez-vous te maa ngi ko joxoon rendez-vous 18 heures waaye rek ba tey fi may wax yow am na ñu ma fa bàyyi dama leen ne nag mënul nekk ndax yéen joxuma leen rendez kon da ngeen di toog xaar ma su ngeen yàkkamtee ngeen ñibbi waaye nag maa ngay dem yàlla seede na ko parce tamit. daal mu ngi noonu mu ngi noonu daal ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax léegi la ma bàyyi Mansour di ba di wax ne ñëwoon nañ yàgg nañ fi lool loolu nag ñu ngi ciy jéggalu bu baax euh, sëñ Sidi Ahmed Haj Malik kii toog mook sama bàyyi daan ànd moo tax ñi fi des tey fii te yàlla na yàgg ñi daan ànd ak sama baay moo ci des tey moom Baye Mansour Diba mii moom la woon ak shérif misba alaaj carno seydu nuuru alaaj abdul aziz imam mbayka carno ah, mansour baro ñoo ñu ñoo daan ànd ak sama baay tabaarakallaahu yal na yàgg nag moom mi moo fi des ci ñi ma xam ñu daan ànd ak sama baay fii tey ci ndakaaru moom laa yëg ku fi des kon yal na yàgg ba pare mooy naay bu im jumaa ji moo topp ci imaam ahmad si fa tabaarakallaahu muy ku sëriñ muhammadul moustapha siise bu piir fonkon fa tabaarakallaahu mu bokk ci ñi nga xam ne tey ñoo fexe ba njàngalem arab dugg ci biir école tubaab yi moom mii ci la bokk moom ñoom moustapha guèye ak ñoom imam mbayka ñoo fexe ba sengoor dugal enseignement arabe ci biir école français yi ñoo ko xeex ba loolu am kon di ba ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la jox wàccuwaay bi nga am ci ñun ak bi nga am ci gox bi fa tabaarakallaahu ak sa doom ju baax ji di pap di ba ak sa njaboot yépp di la sedd seedaloo it ne loo ñu jàpp-jàpp pap mu ngi ciy doxal kemte lay kàttanam nit nag buy def dara ci wutu ca baayam bu baayam toogee da ko koy xamal ndax xolam gën a sedd ñu ngi lay seddaloo ne la pap ku ñu bàyyi xel la lu mu yëkkati it foog na ne ñun ñoo ca mën kon ñu ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg ci kanamu njaboot gi te yàlla bàyyil ñu la fi ba ca kanam a kanam incha allah ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag gannaaw imaam Mouhamed di ba mbokk mi di xarit di soppe di wëllëre waaye di sëriñ ci ñun muy sëriñ si Sidi Ahmed Sarr yaakaar naa ñu bari xam nañ ko way juram ak sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu sëñ Babacar nijaayam la du noonu kañ ndax yaayu maamam bu jigéen soxna astu si ak sëriñ Babacar si ñoo bokk ndey ak bàyyi Seydul Xaaju Malik moo leen bokk jur du noonu kon nag ah kon nag ah, suñu sëriñ la muy ko baax nag jotaay bii rek boole wu ñu de déedéet dem naa ba Louga ca daara ja seeti ko ñu yàgg a xamante daan nañ tase it ci sëñ Abdou Al fa tabaarakallaahu ah, am na programme bu amoon fii ñoom xalifa ak Abdou Aziz Thiam yéen a ko organisé woon fii ci foyer des jeunes bi keroog moo ko doon animé tabaarakallahu ah mu ngi ci internet bi ba tey muy boroom xam-xam di sang di doomu sang di ko baax di ko disponible di ko wàcc waaye di koy daan dooleem nag <coughs> bokkul ci ñi nga xam ne àddiya la ñuy dunde ku mën a daan ñaqam la fa tabaarakallaahu maag moom ñu bokk métier bokk waar wi <laughs> tabaarakallaa xam naa ne oto bii mu indi sax su ma ko waxaale woon léegi mu bàyyee ma ko mayit bi ma indi amul sax palaat damay xaar ku ko waxaale <laughs> kon xam ngeen ne ñoo bokk métier man bi ma indi sax amul plaque maa ngi xool boobu ba tey ku ko fi war a mën a jënd ci tànt bi <laughs> tabaarakallaahu kon nag ah, ñu bokk goj ñooy laxasoo ñu bokk teen ñooy laxasooy goj tabaarakallaahu muy sama xarit nag muy sama wëllëre di ku baax ndax am na benn chaîne bu rafet bu mu def boo xam ne bàyyiwu ci xel te man bàyyi naa ci xel dafa ñëw ñu dajee Belgique Gand mu ne man de dama am benn programme bu ma war a dem Dakar te am na programme bu ma war a def Italie te dama dégg ne da ngay dem itali dama bëggoon jël programme boobu jox la ko te gars yi looy wax a wax a wax bañ jox la seen programme yii ak seen bakkan yi lañ yemal moom kañ jaral na leen sax ñu fomm ko waaye kaay ma jox la programme moom xalaatuñ ko yàlla dogal ma ne ko ah bés bii mu waroon a am moom bés boobu laa waroon jóge itali mayin pour dem Oslo looloo tax mujjuma ko jël waaye geste ba rek wane na ni nit la koo xam ne ku bàyyi xel yàlla la ndax am na loo xam ne boo bàyyiwul xel yàlla doo ko def da nga yaakaar ne nit ki day ñëw jël sa mbooloo wala jël yooyu doxut yooyu amul solo mooy li maam Njaay wax léegi rek man xàmmeewuma ñetti nit ak un million de personnes ndax mbooloo moo ma jaaxalut man man bokk ma ci ñi mbooloo të mbooloo tëwu ma mbooloo jaaxalu man te ñaa yaakaar naa loolu àddina bi wërngal këpp xam nañ ko koo xam ne nag mbooloo jaaxalu la mbooloo tëwu la soo wootee ñëpp wuyu si la looy daw bay daanu ah lay daw bay daanu jaru ko man sax ñetti nit laa gën a sawar ci mbooloo waxtaanal ñetti nit moom laa gën a sawar ci waxtaanal mbooloo kon te lii yëfu soxna jatu la ñu di ko ci jàppale bëgg a bàyyi nit ñi ak seen liberté ak seen sago waaye nii moo daq feek mu ngi am rek ñu di ko def incha allah te ci moom la aju rek waaw soxna jatu nag sëñ euh, sëñ Sidi Ahmed maa ngi lay seddaloo ne ku baax la ba ma ko xamee xaw ma pap xaw ma magu pap mii muy Aliou ku ñu wax Omar Dia rahmatullah alayhi wa radiya anhu génn na àddina professeur la woon fii ci ENDS soxnaam ñaareelam mooy doom ci moom moo tax ma xam ko fa tabarakallahu ëpp na ñaar léegi mu mat fukket ak juróom benn fukket ak juróom ñaar ba ma ko xamee ak léegi boobaak léegi bu manqué xadaratul jumaa rek xamal ne dafa wéradi walla mu tukki su tukkee wala mu wéradi rek nga ko laa ko dul gis xadaratul juma lum amit dana ca comp indi ca kër ga su ma fa fekkee ak su ma fa fekkul bu yàggul sax laa ko ko tere xarum tabaski sax daf daan jël tànk ba indil ma ma ne ko déet fii soxna jotu nag man du ma njëkkee ma ne ko man du tànku xaru tabaski nag téyel nag yow itam lu ne lu mu yëkkati rek yaakaar na ne ci kër ga la baax kon nag ñu ngi leen koy seddaloo nit bu lay defal teraanga ba ay mbokkam toog ay nawlem toog danga ko koy seddal ci kanami ay nawlem waaw te li may wax waa xadara bii nga xam ne ñoom soxna Jàllo ma la ñuy àndal xam nañ ko ci moom te muy nit ku yaru nag di nit ku yaru di nit ku dal buy wax sax daanaka doo ko dégg ndax yar ak teggin kon soxna jotu ñu ngi lay sant bu baax di waxit na ni mu mel ci ñun la njobootam xiir na njobootam ci ñun jiitu ci Pape Fall bii toog Pape Koddu Fall bii ba Aliou ñu Aliou ñëw laaxaale ci njoboot gi yépp ñëw laax ci muy Pape muy Aliou yépp maa leen jox tarixa Tijaan loolu nag boo ko seqeek nit nit kooku yaakaar naa ne kenn amatul fayam jël boppam jox la jël njobootam jox la rek kenn mënatu ko fay te ñi fi nekk ñépp nag noonu la waaye tey dafa di jatu moo aye waaw dafa di soxna jatoo aye waaye ñi fi nekk ñépp fii ku ci ne mën naa jaar ci sa tur jigéen ñii fi toog ku ci ne mën naa jaar ci sa tur jaar ci sa sant ndax ku ma fi xamut amut te ñi ci ëpp ca kër ga la ñuy defee xadratul juma loolu ñu ngi leen koy seddaloo di leen présenté it nii ma ko présenté ngeen xàmmee ko yaakaar naa xam ngeen ko muy Serigne Sidi Ahmed boo gisee ma njëkku ko jukki bu fi sëriñ Abdou Aziz Al Amin nekkoon moom la ñuy njëkk a tudd bu fi sëriñ Mbaye Abdou Aziz nekkoon moom la ñuy njëkk a tudd moo tax mu jiitu fi xaaji Malick ma tudd ko kon te loolu it xaaji Malick moo ma ko may kon fa tabaarakallaahu Sidi Ahmed ca Belgique la ma pàpp wooye ne ma bés bi yëgal naa ko Sidi Ahmed ak Saam ak Duudu Kende ma ne ko waxal àddina bi yëpp ku mën a ñëw rek baax na fa tabaarakallaahu kon na gën a yaatu rek na gën a yaatu gis nga mbir jarul ngay xëcc nit ñi ñuy ñëw bàyyil bañ ñëwal seen bopp gis nga ñii ñëw te yàlla indi leen buñ ñëwee dootuñ dem waaye koo xëcc ba mu ñëw lam lam lan la nga ko xëccee mu ñëw bu ko amatul dootoo ko gis fa tabaarakallaahu moo tax ni ko Pape doxale ak Aline noonu rek la di sant nag Haj ñoom Cheikhou ñële seen programme démb bi mag moom ñoo ci waroon ànd waaye mu foogoon ne tey laa ko wax ma ne ko nag man samedi ak dimanche yëpp laa la waxoon waaye moom xam naa ne Sidi Kunta wàll léegi rek ndax xaritam la te ñoo <laughs> koy koy àndal rek bu yàggee mu wàll la te Sidi daa naax léegi kon Haj ñu ngi lay sant bu baax muy nit ku baax di boroom xam-xam di ko modeste di nit ku yàlla baaxal nag moom it magam xaaji Idrissa laa njëkk a xam ci seen kër tabaarakallaahu mu tegu ci ak Abdoulaye ñoom ñépp fa tabaarakallaahu ñu bokk ci teen bi di di root di suuxat te loolu mooy diine ji rek ak tarixa bi moo leen saf moom it mu am daara ca Cees bésam man mii maa ko jàpp muy le 13 le 15 décembre bii di ñëw incha allah ca Thiès gàmmu la maa ngi ciy invité ñépp fa tabarakallahu ca daara ja fa lañ koy defee ah ci ndigalu xalifa bi sëriñ Mouhamadul Mansour sëriñ Mouhamadul Mansour Seydi Aboubacar si Mansour fa tabarakallahu ak xalifa lew na ñaseen moom sax nee na mooy ñëwal boppam ci tabarakallahu kon mu ànd ak wëllëreem bii nga xam ne moom it dafa ñu sopp lool di njaga jaw yaakaar naa ne ku miin président lay Wade léegi la ma Haj Malick di wax ne bi fi Ablaye Wade di ñëwee yoonam bu mujj bii te dem Thiès benn kër la fa dugg mooy këram moom mii toog njaga jaw bii ci ginnaaw benn kër la lay Wade dugg mooy këram moom kon ñu ngi koy président Wade ñu ngi koy nuyu di ko baax bu baax a baax a baax man jamono yële ca gannaaw matagul at woo na ma téléphone moom président Wade benn jeudi mayib mayib aan moo dem këram di waxtaan ba tudd ma mu ne ko wool ma ko <laughs> waaw mayib aan barki démb rek wowaat na ma waaw mayib ku baax la ci bras droit président Wade yi la bokk léegi nag mu bokk ci bras droit tabaarakallaahu Macron mook président Macron lu ci bari ñooy ànd fi mu nekk nii ba Macron moo ko jox appartement sax barki démb rek waaw utal ko fonction bi mu ko ko joxee nag ci la ma woo di ma félicité ma ne ko déet yow teraanga rek lañ la bëggal fu la ko yàlla mën a defalee rek baax na waaw mook Macron benn lañ waaw benn lañ du ñu ñaar muy Mayib Anne kuy ku baax ku baax ku baax mu nga ca Paris barki démb la wax nañ lu yàgg maag moom téléphone kon fa la réew mi ñun ñëpp a ko bokk waaw ñun ñëpp a ko bokk keroog ndeysaan président Wade fàttali na ma yu baree bare bari ndeysaan yu bari fàttali na ma ko waaw ma ne ko ah àddina mel noonu rek ñun moom réew mi rek a ñu ñor ku fi mën a nekk rek luñ la mën a jàppalee pour réew mi rek danañ la ko jàppale waaye ku bëgg a yàq réew mi it ñu taxaw ne la doo ko yàq ak kum mën a doon nag ak kum mën a doon ak kum mën a doon boo bëggee yàq réew mi man Chérif Ibrahima donte néew naa daraja néew doole danaa la ne yaa ngi koy bëgg a yàq de te ñun ñëpp a ko bokk boo ko déggee baax na boo ko déggul nga xam ne man sama jaan wàcc na kon fa tabaarakallaahu te it am na lu mu fi def te yi mu fi def bari na boo duggee autoroute à péage bii rek ah boo iñaanee boo iñaanut yëpp di nga ko ñaanal yàlla di nga xam ne ki def lii bëgg na réewam waaw te kon nag nit nag bu defee lu baaxi danga koy wax kon njaga ñu ngi lay yóbbante ci président Wade ay nuyoo ak i ngërëm te ne ko coup de boobu mu wax ak man nag rëy na ci man lool ndax ah, Sénégal ñu fi nekk bari nañ waaye nag alhamdulilah yal yàlla defar yépp yal yàlla defar yépp di nuyu mag ñi ci ginnaaw góor gi Ibrahima Sow tabaarakallahu imam Youssou Guèye Mansour géey di nuyu alxaaji Baara Wan waaw fa tabaarakallahu góor gi Ablaye Lo Pape di ba wax naa ko ah Touré ñu ngi lay nuyu bu baax eh, Baara ñu ngi lay sant moom kenn la ci man njobootam waxuma sax njobootam yoro xam ngeen ko ñoom deuxième samedi ci koor gi fii la ñuy defee conférence njobootam ñoo ko organisé at bu jot bi ci des soxnaam bu yàggul la jógee màkk soxna si maa ko jox tarixa tijaan moom it heure boo ko gisul muy xaaji baarawan bii soo ko gisul xadaratul jumaa rek waatal ne dafa am ngant wala mu tukki kon ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci taxawaay yépp nag rawati man di la yóbbanti nuyoo ci bay di sàll bay di sëy monsieur le maire bay di sëy njaareem limaamu laay ah di leen yóbbante ba ci maire de la ville Alioune Sall sama mos tabaarakallaahu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ak man waaw ñun nag maak moom nag kii lañ nuñ koy waxee ci Marème ak Birane lañ duñ ànd duñ tàqali ko <laughs> waaw maak moom Marème ak Birane lañ duñ ànd duñ tàqali ko waaye waat naa ci yàlla ni ñim gën a fonk ci àddina bi man ci laa bokk waaw ba keroog bi muy toxu ci këram gu bees gii man la wax ne ña fay dem pour wàcceel ko kaamil bi maa leen di tànn fa tabaarakallaahu ma ne ah, man du ma ñëw de waaye dinaa la yebalal nag ñu ñu ñu la ko taxawul fa tabaarakallaahu ñoom imaam Mouhamad Lamine Sakho ak mu Muniru Samb Oustaz Munir ñoom ñoo dem taxawu ko fa tabaarakallaahu ah ñu ñaanal ko yàlla it ndax kër googu mënoon na ko tabax feneen dem ba ca weti kër sëñ Mouhamadul Mansour tabax ko fa jël teraanga ju bari jox waa jumaa ja ne leen acca muy sama participation ci jumaa ji te yëgal leen ne ñëw naa dëkk si ndoor ak yéen loolu loolu loolu rëy na rëy na wax dëgg yàlla ah kon nag moom it yal na ko yàlla dolli moom monsieur le maire Alioune Sall yal na ko yàlla di dolli lam bëgg yëpp yàlla defal ko ko bay di nag moom it ku baax la waaw ah, bay di sëy xam nga rek maa ngi lay seddaloo bay di daanaka bu xëyee <laughs> armeel ya lay yendu te mooy meer de la maire njaarim Limaamulaay moom dafa bëgg armeel ya ba nga xam ne bu xëyee fa lay toog yor kurusam ba mu nekkul maire ak bi mu nekkee maire yépp ci yem moom dafa bëgg armel ba yàlla defal ko jàmm foofu xaw ma xaw ma lu mu fa gis moo ak Alaaji Omar Badiane sama benn xarit kookit saa bu xëyee bu jullee fajar bi wodi fa armeel la lay yendu ba tisbaar mu door a ñëw kër bés ma laaj ko ko mu ne ma comme nit ñi dañu fàtte te kenn du la fekk ci armel ya ndax dañoo ragali néew moo tax su ma xëyee dem armel ya rek toog ku ma woo ma la maa ngi ci armel yi <laughs> sëriñ Omar Badiane ku baax la mu ngi dëkk unité 26 sëñ Amane Ndiaye Aroot moo ko jàngal may ko doomam kon ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ñiy tàgg yonent bi ana maam ngóor waaw kañ buñ ne maam ngóor ne xalifa géy mu yóbbaale ñi ci des ñëpp tabaarakallaahu at bu jot yéenay ñëw di taxaw ajaa kon yal na yàlla taxaw leen yéen ñëpp góor ñi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare techniciens yi ñu ngi lay nuyu Ibrahima Wat yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag wolof moo ne ku am gan dolli ñulu kon damay ubbil sama ñaari sang yi toog ñu mottalil ma waxtaan wi bu ko defee bu Hajj Malick jëlee rek jox sëñ Sidi Ahmed man maa koy séddale tey maay séddale te kon bu kenn delloo cëram su ma noppee daal damay jox alaaji Malick mu ubbil xaaji tabaarakallaahu Sidi Ahmed su xaaji Sidi Ahmed daanelee rek na ci boole ñaan bu mu ma jox sax ma ñaan wala bu fekkee bàyyi diba ñu jox bàyyi diba mu ñaan